ki asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa ñoo ñooy nuyu mbokk yi nga xam ne ñooy jàpp xel ak di bàyyi xel seen bii di almalahib tv ñu ñëwaat ak yéen ci seen ñaareelu guddi ci weeru koor naafile yi nga xam ne baaxoo nañ ko jàllale fii suñu sunu naafile tey sopp nañ ko ci julli juróom benn rakka rakka bu ci nekk fatiha benn yoon inaa ansalnaahu fukki yoon sëriñ bi nee na ku ko def insha allahu des na ko jéggal bàkkaaram yépp balaa muy jugee fa ko doon def te des na ko bindal tiyaabay junni ak ak junni omra ak ak nga junni new ak ku jang ab kamil te des na ko bindal itam bay ku jaamu yàlla juróom-ñaar tia ya. ya bay bu xel te dem abonné ci seen bi di Al Manajou TV ndax ñuy mën am bëpp vidéo bo xamné ñango fay jël ko fay wa rahmatullahi كم أهواك يا